et le respect, nous serons plus forts. À l'approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires ainsi que des menaces verbales ou physiques dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Les élections sont un moment crucial de choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte à la discorde. J'appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Nous devons tous, collectivement, préserver ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. Certes, les défis sont nombreux, mais je veux réaffirmer avec conviction que le Sénégal est sur la voie du redressement. Les fruits de nos réformes commencent à se faire sentir à travers des résultats concrets, surtout, vous le noterez, dans les mois à venir. Je souhaite à tous les Sénégalais et à tous les acteurs politiques une campagne électorale pacifique et digne. Et je vous garantis que ces élections seront libres, démocratiques et transparentes et que le meilleur gagne. Vive le Sénégal. mbokki Sénégal gannaaw bi ma sante yàlla ci bu nu mu ñu xéewalee ñu bokk li nga xamante ne amul njëg muy bokk senegaal bi nga xamante ne taar teraanga ak jàmm rekk lañu ko xam lii di jàmm di jàppalante di nawlante mooy li doon suñu kattan suñu alal goo xamante ne mënuñu ko àpp ci njëg moo tax may sargal askanu Sénégal mi nga xamante ne askanu jàmm la askanu teraanga la waaye askan gu fonk démocratie la at yi ñu weesu ak nu mu métti métti askan gi wane na mat wane na tamit bëgg réew mi ba tax na lëpp lu mën a xew am nañu élection boo xam ne ci bu mu jotee génn na ci jàmm voté ci jàmm tànn président bi nga xamante ne moom la fi bëggoon teg lii ngeen seetlu nag ci at yi fan yi weesu ci weer yi weesu ci jàmm ndax ñëpp gisoon nañ ne dëkk bi meloon xaajaloo bi féewaloo bi ba ca biir njaboot yi du lenn lu dul méritu askanu Sénégal ak ni nga xamante ne suñu démocratie suñu institution ndëgërlaay bi nga xamante ne askan gi rek ci ci la weeru ni ngeen ma wooloo nag ba teg ma ci kaw réew mi ma waat ne ci taxaw seen iite rek laay nekke te duma ci xool xaj ak seen duma ci am xaj ak seen ndax ke ñi ma watal ak ñi ma bañ a watal yëpp maay président ñëpp kon ñëpp laa war a boole njaboote engagement boobu ma jël nag ba mu tax ma genn ci politique ci Pastef ci ni ma nekkee woon seen secrétaire général waaye nekk fa simple militant pour mën a gën a nekk bañ a péete mën a njabootal ñëpp moo tax ma def ko te dinaa ci def sama kéemtalaay kattan ngir njëriñu Sénégal jafe-jafe nag bëri na waaye gouvernement bi xar na ci tànk tubéyam ci sama njiit ak njiital président Ousmane Sonko mi nga xamante ne mooy premier ministre nañu moytu. dugg ci li nga xamante ne daf ñuy féewale day gën a andi jeeyu ci réew mi nañu moytu lu mel noonu ci biir booloo ci biir mànkoo ci biir dëggoo lañuy mën a songanteeg lépp loo xamante ne jafe-jafe la suñu kanam di suñu kanamu njaboot ci kanamu Sénégal bi ñu bokk ñu war ci ànd ak nag nawante ànd ceeg solidarité ndax loolu moo ñuy kattanal ci lépp loo xamante ne soobu nañ ci ñu ngi dem ci campagne électorale ci élection législative yii may woo sénégalais yépp waaye woo rawatina ñi nga xamante ne ñooy acteurs politiques yi ak fu ñu mën di féete nañu moytu wax gu ñaaw ji nañu moytu discours yi nga xamante ne dafa ànd ak violence nañu moytu tamit teg ay jéego yoo xamante ne dafay fësal violence seetlu naa ci fan yi ñu génn commencé naa dégg wax joo xamante ne dëgër na ëpp na sax ci ci ko mën a nattee bu ñu gisee fu ñu jóge ak fu ñu mën a yóbbuwaat am na ci sax ñoo xamante ne ñu ngi commencé di bax di jax-jaxal loo xamante ne ab waasu mbirum waasu la war mbirum gëm-gëm ci biir ci télé yi ci émission yi ci espace médiatique yi waaye tamit ci réseaux sociaux yi sama gëm-gëm du noonu la ñu war a régler suñu féewaloo démocratie dafa ànd ak ku nekk wax sa gëm-gëm nangul keneen point de vue am te mu bañ a andi noonu élection yi ñuy dem élection yu am solo la ci tànneef war a doon sax feet ci démocratie waaye warul doon loo xamante ne dafay indi féewaloo suñu diggante kon maa ngi woo acteur politique yi ñu wane responsabilité ak mat te tamit yem yem ci ci ci ci ci propos yi ñuy wax maanaam ci kàddu yi ñu bañ ko ñaawal nañu rafetal lépp dañuy dem waxtaan ak askan wi bu ñu paree askan wi dina dem ci jàmm nu mu ko defee woon 24 mars te mu gënoon métti tànnaat koo xamante ne moom ñoo ñoo xamante ne ñoom la bëgg ñu teewal leen assemblée nationale suñu responsabilité la nag ñun ñëpp citoyen acteur politique ñu sàmm li nga xamante ne amuñu lenn lu ko gën a am solo muy suñu démocratie suñu stabilité jafe-jafe yi bëri na loolu dëgg la waaye bu ñu booloo mànkoo dinañ gis ne que Sénégal mën na génn ci jafe-jafe yu mu nekk dem ci euh, eeru naataange bu ngeen seetloo lu ñu commencé teg lu bëri xëy na communication bi mën na am mu des waaye am na lu bëri lu ñu fànq ci lu yàqu-yàqu ci loo xamante ne lu ñu tegoon la ba pare wala lu ñu doon waaj a maa ngi ñaan nag sénégalais yépp di ñaanal Sénégal di ñaan tamit acteurs politiques yi ñu dox ci jàmm ndax ñu mën a am campagne électorale ci jàmm waaye li ma leen mën a biral mooy élection législative yi moom dina leer ba buñ ci jógee ku ñu daan di nga xam ne yow lañu daan nga war a mën a am matu félicité koo xamante ne ñoo moo la daan ñiy fekkante assemblée nationale teewal Sénégal ci jàmm maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum Euh, merci beaucoup excellence monsieur le de la république euh, comme ni ma ko waxee woon sànq président ci jotaay bi bëgg na mu nekk itam laaj ak tontu ci kaw loolu sànq amoon na ñu ñu recensé woon seen tur xanaa ñu leen biralek ni journaliste bu ci nekk benn laaj nga am donc moom dina jël ñetti question euh, ki ci njëkk euh, di euh, monsieur Abdoulaye Diop nekk le quotidien 24 euh, heures donc Abdoulaye am nga benn laaj Issa Tine moo ci topp bu Walfadjri jërëjëf sëñ Ousseynou monsieur le président ñu ngi lay sant di la gërëm di la nuyu ci jotaay bi euh, di àddu rekk ci mbirum opposant bi ñuy wax Bougane Gueye Dany xamees na ni teg nañ ko loxo fële ca Tamba ci joote goo xam ne amoon na ko ak gendarme yi laata mars 2024 yow ak sa njaboot ci wàllu politik daan ngeen naxarlu yi ni mel ba jàpp ni sax jëf yooye dëppoowul woon ak réew moo xam ne tegu na ci démocratie wala ci république bu normal laaj bi mooy ndax mbirum Bougane Gueye Dany jàpp nga ni deltu ginnaaw la ci wàllu démocratie ci sa ndorteelu magistère ci boppu réew mi jërëjëf jërëjëf ci sama prestation de serment bi ma doon waat engagement bi ma jël ci sama discours mooy bu soobee yàlla su may joxe la ci réew mi ñu gëm-gëmal ko ci bi may dem ak ci ba may egsi Sénégalais bu ne dina mën a teg loxoom ci lu leer ne avancement am na ci démocratie Sénégal li xew Bakel mën naa leen wax gannaaw njëkk leen ko yëg ndax dañ may rendre compte automatiquement maa ngi yéen ci yéen dafa am loo xamante ne nekkul ci sama loxo mooy sama kaaraange dafa am ñoo xamante ne seen responsabilité la am na loo xamante ne seen cër googu mënuma leen ko deflu ndax kon bu ca défaillance amee peuple sénégalee bi dina leen ci ngañ fii dakaar chaque jour ma génn fi bu demoon ba saa yu may génn ku ñu ne taxawal ba président jàll nga ne président yi day doxi soxlaam damay doxi sama soxla kon man mii askan wi yónni di ma xaar te yàkkamti ma dinaa tardé te sama responsabilité moo ëpp ci réew mi kon taxawal xaar président génn ci foo xamante ne am na déjà jafe-jafe déplacement ndax inondation la nga bëgg dem seeti jay sinistré yoo xamante ne maa ngi doon dem ci boor boobu kuñ ko wax wala digg yàlla war nga mën a xaarandi tuuti te maye loolu ba ñu dem lenn rek a ma metti mooy dem naa gis naa conditions yi nga xamante ne ci la ñi nekk ci région Kédougou ak Tambacounda di liggéey muy force de l'ordre muy armée bi muy askan wi jafe-jafe yu mu nekk waaye muy tamit administration teritorial ba mu tax acteur politique yi may doon woo nañu fàttaliku ne kër dañu am responsabilité boo xamante ne exemplarité la war a nekk ci respecter charte yoo xamante ne buñ ci tonkulee jéeye mën na am musiba mën na am ku ne xam na fa président dem dëkk ji dina am ay mbedd yu ñu baare waaw bu ñu baaree ay mbedd am ndox moo xamante ne kenn mënatul doxee nu mu nu mu la neexee président nekk fa ay convois yu gudd dama ko yàlla baal ndax autorité régionale yëpp dañuy dañuy génn muy préfet muy sous topp sama gannaaw ak ñeneen yi ngay ñëw bëgg a dugg ak convoi bu gudd bu ñu la nee xaaral ba président génn li nga war a nangul maintenant yoon a ngi def liggéeyam man ku ma indil kaamil ci saa su naa la mën a waatal ne que man du ma gàllankoor yoon ndax loolu laa waat ci kanamu Sénégal yi saa ñu ma interpellé jox ma information que dara xew na ci wàllu yoon benn atitude laay am def leen seen liggéey donc ci loolu laa ci mën a yem en attendant présomption d'innocence la am yoon dina def liggéeyam yaakaar naa ne bu dee moom lu ñu koy jiiñ amul yoon dina ko bàyyi nu mu ko bàyyee woon bi mu ko woowee te bàyyi ko bu defee nag yoon mooy wax na def na mooy xool tamit lan lay teg ci kawam waaye man ci sama bopp li ma koy ñaanal mooy ay jafe mu gaaw a jeex ba mu delluwaat ci njabootam. merci beaucoup monsieur le président kon ñu jox euh, kàddu gi ki nga xam ni moo di Issa di wax ci tuuru Walfadjri. ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di la nuyu bu baax président de la république du Sénégal monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay sama laaj dama koy jëmale ci li nga xam ne sànq yaa ngi koy wax muy ay kàddu yu ñagas yoo xam ne dañ koy faral di dégg ba ci sax xëy na loo xam ne mën na indi ay jéye ci réew mi ngay évoquer réseau sociaux ñu am loo xam ne gis nañ ko ces dernières 48 heures muy koo xam ne da nga ko nommé bi nga ko nommé ñu toog tuuti gis ci réseau sociaux yi ay nit di ñaawlu nomination bi nga xam ne moom nga ko nommé mu di PCA bu euh, SNHLM nit ñooñu après ñenn ñi di ko minimiser mais dafa dem ba law ba ci ñi nga xam ne xëy na ràññee nañ leen lool ci biir partie bii di Pastef te nga bokk ci démissionné woon ci sa secretariat général bi nga xam ne yaa ko jiite woon sànq yaa ngi koy souligner est-ce que euh, Samba Ndiaye bi nga xam ne moom lañ nommé da ngeen ko fas yéene teggi ndax dégg nañ sànq premier ministre Ousmane Sonko mu bind ab bataaxal am lu mu wax ne des mesures correctives seront apportées mu ne loolu lan lay tekki ci mesures corrective yooyu la bu ngeen ko teggee ci poste bi mu nekk est-ce que du wane que ni président de la république dañ koy def pression pour que su su fekkente ne dafa jël ay dogal jërëjëf. commentaire moom naa la ko bàyyi <laughs> puisque moom annoncé na ay mesures correctives xam naa ne boo bëggee xam mesures corrective yi muy nekk moom lañ koy interpeller ndax propos la waaye li ma bëgg a wax mooy dama nangul ñuy wax que ñu bokk ak man làng wala ñu bokk ci sax kuje gi ñu bañ a ak man. ci li nga xamante ne moom laay teg comme ay bés bu ne te ñu am droit tamit wax ko que mu nekk opposition que mu nekk samay propre partisan dañu am droit am désaccord ak li nga xamante ne maa koy posé comme acte parce que dañ maa dénk lu ñëpp bokk ñëpp a teg ci seen bët war ko watu am ci seen kàddu en tant que citoyen loolu mooy démocratie ma nangul ko ñëpp nag li ma bëgg a wax rek ci coow li parce que coow am na mooy dafa am fu ñu jëlee Sénégal wax naa ko sànq ci message bi ma doon def te lu ko waral mooy wooteeg jàmm dafa am fu ñu jóge am ay féewaloo avant élection njaboot gi sax biir famille ñu ne am na ñoo xamante ne ay frère ak i sœur ay waajur ak i doom waxatuñ ndax politique yàlla dogal changement régime am ñun ñu doon ñun ñu ñu doon buntu xatal di ñu teg lu ne te mu tegul woon lu dul lu dul ne bëgg a sa nguur ñu am matug am esprit de dépassement ki nga xamante ne bokk na ci ñi gën a sonn muy président Pastef premier ministre actuellement Ousmane Sonko taxaw Grand Théâtre ne lépp loo xamante ne def nañ ko moom ci boppam baale na ko muy jëfu jullit ndax ku ko xam-xam ne bëri na lu muy wax ne royukaayam ci wàllu politique yonant bi la sallallahu alayhi te lu ne teg nañ ko ko mu am doole feyu baale waaye foofu sax sori na Afrique du Sud gii bi apartheid amee ñu def seen commission vérité réconciliation esprit de dépassement la bañ a feyantu moo tax jàmm am tey ba sax fa ci Afrique du Sud kon ki nga xamante ne baale na ne baal naa lépp luñ ma def lépp luñ ko def ak nu mu metti metti la ak nu kàddu gu ñaaw ñaaw ak luñ ko teg teg teg te yàlla xam ne ne daj na mu amaat leneen loo xamante ne dañ ko war a sóoraale ci projet bi nga xamante ne moom la ñuy jaay Sénégalais yi ba ñu jënd ko teg ñu ci kaw réew mi mooy dañ ñoo wax ne dañuy def appel à candidature ci post yi commencé na ak la commission nationale des droits de l'homme projet de loi bi ma ñëwee fekk naa ko assemblée nationale dañ ko jëlaat dugalaat ko yokk ci ci bu ñu koy falaat day am appel à candidature te ñu ngi ci procédure yi bientôt ngeen gis lancé nañu ko kon boobu ñoo ko ci dugal ni ko nar a dugalee ci yeneen post waaw bu ñu ko dugalee est-ce que dañ koy appel à candidature bi day nekk kese ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun wala sénégalais yépp lay nekk ak boor bu ñu mën a bokk waaw bu ñu nekkee ci boor bu ñu mën a bokk est-ce que dañuy wax ne képp koo xam te ne mës nga wax Bassirou Diomaye fay lu ñaaw rek mënoo bokk ci appel à candidature bi gëwuma loolu li ma gëm kon appel à candidature mën na ubbi jur ay nit waxoon ci ñun lu ñaawa ñaawa ñaaw tegoon ñu sax lu méttee méttee méttee waaye commission buy analyser dossier yi nangul leen ne ñoo gën a xarañ ñu jël leen teg leen est que bu boobaa dañuy wax ne ñii dañu doon wax lu ñaaw donte ñoo gañee nañu leen tegg fu ñu nekk gëwuma loolu li ci tegu nag mooy dama nekk kaso ñu teg coalition coalition bi ci base bi ñëpp xamoon nañ du pour man pour suñu candidat bu ñu gàllankoor la woon bi ñu demee ba mënatul dem ñu teg ma coalition bi doon coalition Diomaye président ma ñëw fekk fa nit yu bari ñu xeex ak ñu ndax boobu ñu ngi ci opposition jëlaguñu woon nguur ànd ak ñun ñu gañeendoo nguur mu am ci ñoo xamante ne nag ci période bu ñu ñëwee ànd ak ñun ndax dañoo bëggoon nekk candidat ñu gàllankoor leen ñu ñëw ànd ak ñun wala dañoo renoncé sax laat ñu leen di gàllankoor ànd ak ñun wala dañ dabe feneen ñëw ànd ak ñun ñooñu joxe nañ def nañ ci coono def nañ ci seen alal def nañ ci seen temps kon ñooñu dañoo ànd ak ñun xeexandoog ñun ak fiñ ñu mën a dabe ba ñu am nguur kon ñooñu kenn mënul wax ne dañoo transhumé kon buñ ci falee kenn ñu àndilaat wax joo xamante ne waxoon nañ ko mu ñaaw te kiñ ko gën a wax sax moom baale na dama yaakaar ne bu ñu nekkee du sulli loolu jafe-jafe yi ma fi fekk ak féewaloo kon du fi mës a te kon day nekk pàccum Sénégal yu am solo parce que bu ma jëlee seen candidat kese waxuma ñeneen sax ñoo xamante dem nañu voté feneen am nañu 1 million cent mille voix te du ñooñ kes ñooy Sénégal day nekk pàcc bu important yu Sénégal yoo xamante ne ci ni ñu waxee nii pour jël ci xayma rek Sénégal 2050 daanaka dañu leen di génne ci ñu mën nañu liggéeyalaat seen réew gëwuma loolu par contre ku ne xam na Bassirou Diomaye Ousmane Sonko keneen ak keneen ci biir Pastef ci opposition bi ku politikul amul kenn koo xamante ne dinga def lu waroog yoon yaakaar ne jege pouvoir bu ñu nekk actuellement mën na doon protection pour yow parce que gëmuñu loolu kon ku ñëw bu dee dafa am loo xamante ne def nga ko li ñu lay defee bu bu jotee ñu toppee la ko dinañ la topp ci ñuy ànd ak ñun ci coalition ak ci ñoo xamante ne sax ci bu ñuy sos parti bi ñu ngi ca woon ba ci man mii nga xamante ne maay président de la république kon ku ñu teg ay ay acte mu nekk nomination mu nekk ay décret mu nekk ay leneen ak leneen ay nit bañ ci kontaan loolu lu ma comprendre la lu ma nangu la ndax loolu mooy démocratie. merci beaucoup excellence euh, ñu jox euh, troisième et dernière personne euh, madame Fana Cissé bu Presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Monsieur le Président, moi j'ai juste deux pour la première, euh, on sait que vous avez les prérogatives de nommer aux emplois civils et militaires. Aujourd'hui, avec la nomination de Sam Ndiaye, Aujourd'hui, avec la... le principe, un journaliste, une seule question, s'il vous plaît. D'accord. Euh, je vais aller La deuxième question. On a connu avec le régime passé des ministres euh, et des DG qui désertent leur bureau pour battre campagne. Avec la rupture tamponnée euh, à PASTEF, comment comptez-vous gérer l'agenda gouvernemental On sait que Fadilou Kaïta, DG, CDC, est nommé directeur campagne au niveau de PASTEF, tout comme le ministre de l'assainissement, euh, Cher qui va gérer la communication. d'abord le poste de directeur de campagne boo ko xamee ci nu muy demee coalition c'est quelqu'un déjà qui ne bouge pas donc pour ñu bañ rek stigmatiser jël nit booy ko au gémoni parce que cité nañ turam ci loo xamante ne lu ñu ŋàññi la te nekk di ko di ci tontu ci diggante laaj ak tontu bu ndox sama diggante li ci tegu nag mooy gouvernement bi fu mu nekk nii def nañu set mois am na ci ñuy sonn nag parce que fu ñu jóge moo tax te pourtant dañu leen wax ne bu leen dem noppalu ji kon li ñuy xaar ci ñoom man la seule chose qui m'intéresse mooy est-ce que tout célérité bi ñu ci war a def yëpp mu ngi ci am na ñoo xamante ne seen responsabilité mooy ñu délivrer à temps tout dépend de comment ils s'organisent est-ce que dañoo def ay heures supplémentaires est-ce que dañoo dem fanaan ay ay ay guddi guddi pour mën a am yoo xamante ne avancé nañ ci seen liggéey c'est des choses qui arrivent man mii di wax ak yow il arrive que ma ñëw sax dimanche liggéey lu bëri pour lundi ma mën a dégager plage yoo xamante ne dama ciy recevoir ay nit kon organisation travail bi man duma ci impliqué wu à niveau li may xool mooy kan moo war a joxe dossier ci ban ab est-ce boobu wàcc na te xam naa ne premier ministre mi nga xamante ne moom lañ def tête de nekk premier ministre nekk campagne électorale terewul mu liggéey seete ko ci man du damay voyage moo may tere signé ay décret du moo may tere coordonné du moo may tere def ay ay euh, ay actes yi nga xamante ne war naa ko poser parce que nu ñu organiser liggéey bi nit mën na liggéey à distance mën na coordonner à distance mën na dem ñëwaat mën na guddee mën na teel a xëy mën na naaja dem seen question nag de trois semaines démocratie nag dafa am prix dafa am prix fu ñu nekk nii ak ni élection ni ni ni dund gi tar tar tar biir Sénégal dañuy obligé jël xaalis dugal ko ci élection parce que vitalité démocratique bi la ñuy ut ak célérité ci ñu bëgg a def démocratie boobu nag mooy tax ci app ñu appal ko ci ñett ñett ñett ñetti semaine nit tamit mën a dem battre campagne parce que am na droit à un congé électoral et c'est prévu par la loi man bu may nekk fonctionnaire j'étais chef de bureau ñu investir ma 2017 ma jël congé électoral dem battre ci campagne te congé électoral boobu c'était consécutivement a un congé administratif normal kon nii nii ñi di organiser wu man je suis convaincu de l'engagement de tous les membres du gouvernement et de l'administration et du sens des responsabilité ci li nga xamante ne warloo nañu ko ak askan wi ci li ñu diggante ak ñoom ak ci li leen charte réew mi teg kon sous rapport la je leur fais pleinement confiance et entièrement Merci beaucoup. Merci, Excellence. Je pense que nous allons clore cette session et permettre au président de la République de se retirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.